alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bi xaaj Mouhamad Zeynab al allaama al bi nga xam ne moo jaaxal àdduna bi yëpp nag ci jamonoom mag ñi nga xam ne ñoo maasoondoo woon ak weyjuram daan jëflanteeg maam alxaaji Abdoulaye Niass ci xam-xam ñoom ñëpp dañu daan wax ne ñun alaaji Abdoulaye yéematuñu waaye ki ñu yéem mooy doomam alxaaji Mouhamad Zeynab te jawdatul xatti ak jawdatul ibaara maanaam mbind loxo bu rafet boo xam ne mbind mi kéemaan ne na ci taar waaye ay ibaaraatam gën koo yéeme ci wëy ci nasmu ak ci nasru kooku nag mooy oote ne bu ngeen di jublu xam ngeen ci kan ngeen di jublu ummu ila barhama kaay leen ngeen jublu ci mawlaana cheikhul islaam alhaaji ibrahima ñas kooku mooy kan haadil bariyati mooy kii gindi mbindee fii di gindi leen demee leen ci yàlla tabaraka wa taala mu firi nag barhama jox ko ay awsaafam yoo xam ne lenn la ci ay awsaafam walakinahu awsaafuhu laa tuhaddu ولا تحصى فأموا إلى قطب الزمان وغوثه ووارث سر الشيخ أول وهلتي gis nga ibaara bi ci ngay xame kiy wax li muy wax ni mu ko leere te xam nga xutbaani ya daraja la ci wilaaya xutbu zamaan wali yàlla yi ci seen bopp dañoo am ay maratib dañuy wax ne daayiratul wilaaya moo ëmb daayiratul maarifa waaye daayiratul maarifa moo ëmb tax kullu aarifin waliyun wala aksa aarif billaahi boo gis mën nga ne waliyu yàlla la waaye nekkul waliyu bu nekk aarif billaahi moo tax sufiyanke yi xàmmee bu ñuy bind taarif dañu naan al waliyu alwaasilu ne alaarifu alkaamilu ndax wilaayatu moo jiitu mooy méngoog yàlla yàlla méngoog yow rek moo kam wilaayak kasbiya la walla wilaayak wahbiya ñaari wilaaya yooyu ñoo fi ne wilaaya kasbiya day am charte am sabab boo defee charte bi def sabab bi nga jot ca bu dee defoo ko nag doo ci jot wala bu dee jot nga ci maqaama bi itam charte ba ko mayoon ak sabab ba bés boo ko bàyyee ñàkk ko loolu mooy wilaayal kasbiya wilaayal wahdiya nag mooy wilaaya goo xam ne boroom jazban bila chartin yura wala sabab li mu am biib yàlla bi moo ko ko jagleel ci lu dul ak ci lu sabab loolu nag mooy xaalibu maqaamaati ahli hazihi tariqa tijaaniya léegi nag wilaaya googu moo jur maarifa kon daayiratul wilaaya moo gën a yaatu daayiratul maarifa aarif billaahi bu ñëwee day nekk wali yu ba pare door a nekk aarif waaye nag daayiratul qutbaaniya moo gën a sew daayiratul marifa kullu aarifin kullu qutbin aarifun wala aksa kenn du nekk xutbu te fekk nekkoo aarif nit mën naa nekk aarif billahi te doon xutbu léegi nag ci biir maqaamaat yooyu ci ni ñu suufiyanke yi ni ñuy tuddee diwaanul awliya nga xam ne day am wëlu yàlla yu ñuy tuddee nujaba nu nukaba ñi ñuy tuddee lafraat ñi ñuy tuddee leen mafatihul kunuuz ñi ñuy tuddee leen awtaat ñu ñuy tuddee leen abdaal ila axirihim ñoom wëlu yàlla yooyu yëpp buñ dajee nag ci jamono ka leen ñoom ñëpp nga xam ne jamono bi mu toog benn wëlu yàlla féetewu ko kaw moo féete ñépp kaw kooka la ñuy tudde xutbu zamaan léegi nag xutbu zamaan ndax am na ñeneen ñu ñuy tudde ay aqtaab ñoo xam ne am nañ ay martaba ci biir wilaaya mais seen wilaaya boobu du tax ñu tudde leen xutbu zamaan mais ki ñu tudde xutbu zamaan nag mën nañ koo tudde waat mën nañ koo tudde insaanul kaamil mën nañ koo tudde saahibul waxti mën nañ koo tuddee دينغ خليفة الله في الأرض من أنكو تبي كامل العصر أك ينيني توريو خمنا أسماء مترادفة لمسمى واحد وايا قد الزمان تريد ندقنا سوفيان كيسين لبوا إشارات لا قد الزمان بيغي جيس مورد مخوطن كبير نخ بو عدد قد الزمان رك مولا جوخ 240 قد الزمان مولا جوخ 240 نجل سواتي الله حي قيوم مجوخ 240 ndekki ñoom barki démb rek maa ngi dégg benn waay bu ñàkk jom boo xam ne yàgg naa tooñ saalihiina yi bañ tëj ko fi kaso muy def dar si tafsir man sax dama romb rek feles mu naan waaw tur yooyu ñu leen di tuddee naa leen ay xut bokki raw sutu dañ leen di nax rek dégg nga ma ne ko yaa ñàkk jom donte sax dégguma euh, xut bu zamaan maanaam seen tur yooyu ñuy jël di ko tudde gaay tur yooyu ñu leen di tuddee masalan nekkul ay pour hasard maanaam bu ñu tuddee ne kii mooy xutbu zamaan nga adat xutbu zamaan mu jox la deux cent quarante nga dellu ci xadiisuhul qudsi laa tasubbu dëhra fa inna allah huwa dëhër ad dëhër boo ko adadee rek ad dëhru mu lay jox deux cent quarante ad dëhru fa inna allah huwa dëhër nga adat ad dëhër mu jox la deux nga adat xutbu zamaan mu jox la li mu ad ba pare jox la li mu allahu xayu qayum ndeke kon waa ji ñuy tudde xutbu zamaan mooy waajoo xam ne ci jamonoom ñetti tur yàlla yooyu nga xam ne daanaka ñooy tur yi nga xam ne tur yàlla yëpp dañuy tëxañuwaat ci seen biir alif laam miim allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum allahu laa ilaha illa wala qayyum laa taaxudu sinatun wala naw allahu xayu qayyum boobu ndekete mbóot mi sirru allah sirru xayaatam bi sirru qayyumiyatoom bi yàlla daf koy def te jallii ci jaam boobu ba nga xam ne moom jaam boobu day naan ci mashrabu tur yooyu ba pare nag nekk feeñuwaay ci jamono bi mu feeñe ci feeñuwaayu ñetti tur yooyu yeneen tur yàlla yépp itam seen mbóot dal di dëxañu ci moom kooka la ñu naan xutbu zamaan waaye xutbu zamaan boobu mën na koo doon ba noppi te du nekk taalibeb Cheikhu Tidiane yi te lu jëkk Cheikh na Ahmad Tidiane waaye bi Cheikhu Tidiane feeñee ba péncum yàlla xutbaaniyatu dootul génn lu dul ci tariqam moo tax xaaj Mouhamad Zeynab maanaam bi ni mu fa ummu ilaa qutbi zamaani teg wa gawsihi wane ne Mawlaana Cheikh Kut gi gu wér la mais al qutbul fardul jaamee ba noppi di gawsu asr waaye yemu fa de wa waris sirri cheikh bu yemoon fi kon maqaama bi dana des ndax qutbu zamaan yi nga xam ne toogoon nañ ci qutbaaniya lu jëkk cheikh tijaani ñu ngi daan yem ci rek waaye nak cheikh tijaani bi mu jot maqaama xatmiyatu ak katmiya muy ñaari maqaama yi gën a kowe ci wilaaya nga xam ne amul benn waliyu bu ci mës a yegg te benn waliyu dootu ci yegg ba péncum yàlla léegi nag ki nga xam ne nekk na bu ba pare doon naat sirru cheikh Seydi Ahmada Tidiane bu boobaa kooku rek mooy jëmmi Mawlaana Cheikh Seydi Ahmada Tidiane kon gis nga ibaara bi ni mu ni mu ni mu xóote maanaa damay seetantal bayt yi rek ba ba mu dugal ma feneen fa ummu ila xutbi zamani te gis nga xutbu zamaan boobu ma la wax ne mooy de cent quarante li lay woon ne Cheikhu Tidiane bokku ci boo ci dollee razaqu allahu xayu qayumu razaq muy trois ci ngay am cinq cent quarante huit mooy Ahmada Tidiane maanaam xutbu yi ci ci allahu xayu qayum lañ yem waaye razaqu bi nag mooy mëdët bi risque bi moo tax cheikh ne laa yashrabu waliyun wala yusqa illa min bahrina min ladun aadama ila naa ko fi suuf ne benn waliyu yàlla du naan leer mbaa mu nandal keneen te gi bàyyi ko woon ci sama géej gi man Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Mawlaana Cheikh Ibrahim wax ci taaliq bu yéeme mu ne ñu dégg ci ne kon Seydi Ahmad Tidiane kenn waru koo tëkkaleeg benn waliyu yàlla ndax Cheikh Tidiane mooy géej gi yeneen waliyu yàlla yi ci des ñooy jën mu ne jën la ñuy tëkkale ak moroomu jënam waaye kenn du tëkkale géej ak moroomu géej ak jën al awliyaa xuutun wa cheikhu ahmadu baxru maolana cheikh ibrahim noonu la firee laa yashrab waliyun wala yusqa illa min baxrina léegi nag xaaj mouhamad zeynab nag nag cheikh tidiane maqaamaam yooyu mu amee mooy xutbaaniyatu bi gawsaaniyatu bi sirroom bi nga xam ne mooy xatmiya ak katmiya nag manto moomu ka ko sol moom laa leen di woo pour ngeen ñëw ànd ak moom te kooku mooy cheikhul islam maulana ibrahim Niass fa ummu ilaa qubbi zamani wa gawsihi wa waarisi sirri cheikhi te itam li mooy ne maanaam awala waxlati bii doxul doxul par hasard awala waxlati masalan cheikh Tidiane bëri na ay xulafa waaye bul fàtte ne آه، سيدي عبد الله ولد الحاج دافا مسا واخ ماغي اداو علي نلن من منا جند علوم الاولين والاخرين بقوله تعالى قال رجلان في الله واخ جي القران قال رجلان منا تي ген خم خم واي ديك اك واي موتو معنام رجل النبوه ورجل الولايه ngir ne nubuwatu dafa am zillu am zaat masalan daa am ñoo xam ne yonent yi dul yonent yàlla muhammad yëpp takkandeeru nubuwa lañ am waaye jëmmi nubuwa kenn la mooy yonentu yàlla muhammad yonent yi jiitu yonent bi yëpp takkandeeru yonent takkandeeru nubuwa lañ amee waaye dëggi nag gi nubuwa nag mooy yonentu yàlla muhammad xutbaaniyatu itam maanaam wilaayu itam awliya u yëpp yu dul cheikhu tijaani ñoom zillul wilaya la ñu amee waaye zaatul wilayati kenn rek moo ko amee mooy cheikh sidi ahmad tijaani moo tax mu ne ana rajuluha min qaafin ila qaaf man yaarif fal yaarif ni ana waxdi fal kullu minni wa ilayya bi maanaa ci daayratul wilayati te man rek maay géydug maay góorub wilaya man cheikh tijaani kuy xam na ma xam man dong min min qaafil qidam min qaafin ila qaaf yaani من قاف القدم الى قاف البقاء موي من الازري الى الابطري لولا بغا واخ مانا دائره الولايه من شيخ تيجان دونغ ما تي غور نيجي نك حاج محمد زينب دي ديف اشاره ني خلافه فوفو نك nga jël musri sidi mohammed musri radiyallahu anhu mom minana ci bay bim ñewate mu ne mbokk yi dawalem yi sama baye abdullah waladul hajj def ne woon mën naa génne xam-xami way jëkk ak way mujj ci qaala rajulaani ci aaya boobu waaye man nag mën naa génne xam-xami way jëkk ak yu mujj yëpp ci qaala rajulun qaala rajulun rek benn rajul bi rek man ci laa génne xam-xam way jëkk ak yu mujj ndax mooy rajulul xilaafati léegi nag loolu la Cheikh Haaj Mouhamad Zeynab di junj ci bàyyi moo tax xasida bi séyru bu mag la fa ummu ila bi zamani wa gawsi wa waarisi sirri cheikhi awwala wahlati بمعنى أول وهلة mooy mbir mi yaani fi awalil amri yaani kon nga dégg ci ne bu dee bàyyi dafa feeñ ci aaxiru zamaan ba nekk ba pare te moo di waarisu sirri cheikhi awala wahlati mu ngi lay junñu ne kon kii itam mooy rajulul xilaafati maanaaha xulafaaw yi ci des yëpp zillul xilaafa la ñu amee waaye nag zaatul xilaafati wa xaqiqatuha ki ko amee mooy mawlaana cheikhul islam alhaaji ibrahim ñas lii la xaaj Mouhamad Zeynab bu di wax kii nag ku ko xam faawoo rek nga ànd ak moom ku ko xamul itam moom ngay wër rek dangaa dajewul ak moom mais moom ngay wër ku dajewul ak moom rek moom ngay wër ndax euh, Mawlana alxaaji Abdul Aziz Dabbaax radiallahu anhu lam ko waxoon euh, cheikh al machaayixi fi l islaami wa diini maanaa yaay sëriñu sëriñ si yow Cheikh Ibrahim ci lislaam bi ak ci diine ji maanaam euh, cheikh al machaayix fi lislaam loolu moo tax ñi koy tuddee cheikhul islam sax seen seen bi dafa des Baay passé na di cheikhul islam mais Baay mooy cheikhu machaayixil islam cheikhul islam kooku ku nekk cheikhul islam ku dem ba yow yow nga doon cheikhul islam boo dajeeg Baay mu nekk sa cheikhu yow te loolu la ko Abdul Aziz si wax te wax ji du ay li may wax nii xam-xam bu leer la du ay fanatique masalan euh, oustaz Ibrahim Mahmoud Diop rahimahullah wa radiya anhu mu ne dafa dajeeg xaaji Abdul Aziz ci Casa euh, ñu wàcc ndeke ñoo bokk avion bi mais yëgut ne oustaz mu ngi ci oto euh, avion bi oustaz wàcc di ko xaar bi mu ko nuyoo rek mu daal di koy ne jàpp loxo bi ne ko barhaamu inni mushtaaqun li ru'yatihi li tuuli ahdi bihi بشراي لقياه يكفيه فخرا وعزا في المجادة أن شيخ المشائخ في الإسلام رباه معنى شيخ المشائخ في الإسلام رباه لجس نكون حاج عبد العزيز وخم جي توزور بيان بلا بيت بي بام فلي يا نخبة العلماء كهف المساكين شيخ المشائخ في الإسلام والديني وهي موم لجلسوات يكفيه عزا وفخرا في المجالة أن شيخ المشايخ في الإسلام رباه كن فأم إلى قطب الزمان وغوثه ووارث سر الشيخ أول وهلتي وأم إلى سر الوجود بأسره جملة تكيا خمنا موين بوتن xam سر الوجود بأسره bindeef أنا النفس والآفاق bu boba yang koy dégg fofu baytu bobu ak bi def dekk na muqaabaqa fa ummu ila sirri alwujud bi asrihi manam ana an-nafs wala afaaqu mahma raaytaha tarani fa inal kullu min indi rabbih wa ummu ila asrari kulli lxaqiqati waaw na ngeen jëm ci ki nga xam ne mooy mbootu xaqiqa yépp wa ummu ila zaati tijaani wa kullihi وعين رسول الله افضل ملتي خول كون بيت بوبو فوفلاي فوفلاي تنكرن با ديونات ان شاء الله مي ليغي نين دي خامي في ميم دنگ ليغي دي ني خامي في يم موني ني على يا دعاه الوقت فامو وامو وامو نينت بي نيتل بي لي دا نين دي باي لين ما ديخال نينت امو مو جير ياي دي وامو الى ذات التجاني وكله خنا كون لي ما دون واخانغو maanaam ki may wax xaj Mouhamad Zeynab ne kii mooy jëmmi Cheikh Tidiane waaye wa kullihi te waxaloon na boppam yaa man yuridu Tidiane ay musafaatan kon leer na wa ummu ila zaati Tidiane wa kulli hmm? maa yéemu maa yéemu Baye Omar Fati wallaahi ndax du ngeen yéem dundam gëlépp la mu peeg mooy Cheikhu Tidiane Cheikhu Tidiane baxrul anwaari xatmul awliya xatmul xatmu moo di bàyyi moo doon Tidiane xam ne moo di baay moo doon tijaani waaw kon wa ummu ila zaati tijaani wa kullihi wa ayni rasulillahi afdali millati xam nga képp ku nekk jëmmi cheikhu tidiane yow yaay jëmmi cheikh yonent yàlla muhammad ndax faqihi nadif yi ba muy tàgg cheikh tidiane dañ ne ko comme li ma maam bas wax waxal ta mu gàtt nadif yi ne benn bayte laa leen di waxal man ngeen koo firi fii ba àddunay tukki نكو وخال من فعينه عين العين ففهم إشارتي ومن فيض بحره الأنا مستمدة من جن شيخ تجان موي جن جم جم جيغل سما جند بي نك كي فيض جيجم كي نك لمي ديف يپ دي تبو فقيه النظيف نينا بن بيتي بي رك لا لين دي وخال كوم بنينا بك ما كوي شيخ تجان تتنك كو فعينه عين العين ففهم إشارتي aynu bu jëkk bi cheikh tidiane la aynu bu ñaareel bi yonent yàlla muhammad mooy awjadani xaqan li jabril kasri fa innani wakiilu sirri sirri wakiil bi moom la sirru bi cheikh tidiane sirru bu ñaareel bi yonent yàlla muhammad la allahuma salli ala sidina wa sallim ñi ànd ak ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV